waaw ma moi personnellement nag euh, discours bi bettuma dans la mesure ou déjà euh, président Macky Sall ba léegi li nga xamante ne moom la waxoon moom la maintenir jusqu'à la fin nekk na koo xamante ne boo xoolee parcours politique am trajectoire politique am euh, di nga xam ne aussi euh, du du du làmbartu donc euh, discours bi effectivement mën nañu wax ne c'est historique euh, les annales de l'histoire politique et de l'histoire tout court dañ koy retenir mhm. d'autant plus que mosuñoo am un président sortant qui organise des élections te du ci bokk ça c'est première au Sénégal et que loo xamante ne tamit mën nañ ko saluer dans une euh, très large mesure d'autant plus que li fi xew précédemment dafa xawoon a écorner l'image yu image yu Sénégal notamment au niveau international mais aussi euh, ci démocratie Sénégal tout court mais loolu noonu yëpp ay facteurs euh, endogènes la ci moom mais am na tamit des facteur yoo xamante ne ils l'ont poussé à boo xamante ne l'aspect sécuritaire n'est pas li nga xamante ne moom moo xew on est entouré par benn ceinture de feu euh, le Mali avec euh, li fay xew Guinée ainsi de suite point d'interrogation yi dafa bëri nga mën a yokk de l'huile sur le feu en déclarant une candidature boo xamante ne leeroon na la ni aussi day yëngal dina yëngal dara président Macky Sall du wax nii nii nii rek daal le néant xam na aussi impact bi nga xamante ne askan bi actuellement bàyyi nañ ko xel. Mm-hmm. bu bu woon damay bokk guddal jël la mais en réalité. il sait avec des éléments probants que mënul gagner élection jamono jii ci Sénégal donc kon guddal jël boobu noonu est sorti par une très petite porte président Macky Sall agent wu Petrosen ba fii mu toll nii je pense que ni Sénégal desee lotu ko dara donc pour mu mën a dugg aussi dans l'histoire pour mu mën a sortir par la grande porte il lui fallait euh, mu def euh, acte bu ni mel d'autant plus que euh, juridiquement on peut tout dire euh, ci mbir mi mhm. mais euh, il y eu aussi des problèmes ci ni ñu rédiger ni ñu defee le référendum parce que euh, l'article 27 euh, am na historique bu njëkk ba dañu ciy waxoon ci dernier alinéa bi que ni le mandat en cours faisait partie de euh, du décompte. ñu dem mm. conseil constitutionnel ne leen lii dañ koy dindi. ok ñu ne leen lu tax ñu koy dindi mu ne leen parce que euh, ce, euh, ce référendum là est hors de portée du mandat acquis en 2012 loolu c'était clair donc amoon na ay zone d'ombre yoo xamante ne mënoon nañ cee débattre autant de fois mais li doon wër te wóor moom mooy. Mhm. moom moo mënoon a décrisper euh, situation bi mais décrispation boobu noonu déjà euh, facteur bi nga xamante ne moom mooy sa parole essayer de sorti par la grande porte. Mhm. mais aussi des facteurs exogènes yoo xamante ne exiger nañ ko imposer nañ ko. mu euh, doxalee nu ni mel parce que effectivement Kajoor l'a souligné tout à l'heure c'est-à-dire mhm. euh, élection euh, présidentielle la ñu jëm mais pas sélection on se rend compte que actuellement il y a des candidatures bon enfin une candidature qui est toujours en point d'interrogation muy Ousmane ko jàpp nañ ne ci li nga xamante ne am na fi comme procédure judiciaire contre lui mënul bokk léegi yow nga ne le chef de fait ci opposition bi ëpp ci popularité il faut dire les choses telles qu'elles sont kooku du bokk man damay bokk bu boobaa da ngay yëngal réew. ëpp ci popularité aussi bon. c'est factuel c'est factuel c'est-à-dire non non c'est factuel et c'est objectif. Mhm. Ousmane Sonko bu génnee fii léegi bokkul ak benn leader bu génn fii. ma man hmm. Ousmane Sonko euh, ñeneen jàpp nañ leen. Mhm. ñeneen am nañ ay procédures judiciaires. Mhm. mais Ousmane Sonko nii mu mel bokkul ak na woon parce que bu njëkk ba euh, Khalifa Sall écarté nañ ko coow jubul ak ah, écarté nañ fi Karim Wade coow jibul bal tàkkul Ousmane Sonko léegi léegi léegi bu defoon éruption ci mbedd mi léegi mu fees teel